xamal leen ne tey ñu ngi célébrer benn promotion suñu trentième promotion ñu tuddee ko ndem si yàlla Mansour Kama euh, promotion bi ñuy célébrer tey bi ñuy feetal bi ñuy bégal tey am mu am na lu tolloog euh, deux mille étudiants yoo xam ne nii dinañ ci jot seen seen diplôme tey euh, mais li ci gën a am solo mooy kii nga xam ne moom lañ tuddee bés bi muy Mansour Kama sénégalais yëpp xam ko africain yëpp xam ko muy koo xam ne ni ñëpp a ko naw ci bëgg réew mi bi muy dund ñun ñëpp ay seede lañ ci ni mu doon doxale digganteem ak képp koo xam ne ni rek yaakaar na ne yaakaar nañ ne mën na avancer loo réew mi ren nag ñu tànn ko pour fàttali jëfam fàttali ay jalooreem xale yi nga xam ne tey ñooy génn ndax dafa am solo bu nit nekkatul la mu jëf ñu mën ko di vulgariser ñu mën ko di wasaare ba ñëpp di ko di ko dégg looloo tax tey ñu choisir ko di gërëm njabootam gi nga xam ne yëpp teew nañ fi tey ki ñuy wax Saliou Kama jiite ko ñu teew ñoom ñëpp moom ay doomam ak ay rakkam ak i magam pour fekk bés bi ñu leen di gërëm bu baax ci loolu xam nañ ne nag Mansour Kama ñaari njaboot la amoon amoon na njabootu boppam mais amoon na aussi njabootu professionnel am muy waa CNES nga xam ne ñoom tam wute wuñu bés bi Euh, daje yi day me day doon ci ñun ab occasion rek pour ñu waxtaane toujours suñu groupe suñu école suñu établissement muy groupe ISM euh, li ñu jot a def ci at bi tey waajal at bu bees bi ci at bi muy deux mille vingt suñu boroom may ñu ci vraiment euh, defal ñu ci sutura may ñu ci ndam yu bëri gàddu ñu leen mëna a lim yëpp mais ñu ci gën a lim rek mooy bii nga xam ne association africaine des business schools jox nañ ko l'ISM euh, il y a deux mois muy ce qu'on appelle l'accréditation ab su muy benn raaya boo xam ne mennum ISM la ko association boobu jagleelagum ci Afrique bi ñuy wax sowu Afrique ci ci au sud du Sahara euh, Afrique francophone au sud du Sahara parce que euh, non seulement Sénégal mais Afrique francophone c'est la première fois ñu jox ko benn institution Euh, li tax nag ñuy rafetlu liggéey boobu euh, raaye boobu dëddi raaye la boo xam ne euh, duñ ko joxee ci yaama neex bu la ko association boobu joxee dana toog lu wat lu mat at di càmbar li nga xam ne nii moom nga liggéey depuis lool et ñun depuis mois de d'octobre passé ñu ngi ci processus boobu ba moo aboutir au mois de mai ñu nangu ne ci juróomi école yi ne Afrique yi nga xam ne nii tey raaye boobu yelloo nañ ko ISM ci la bokk loolu nag ñuy jàpp ne ndamu Sénégal la ndamu enseignement supérieur u Sénégal la ndamu enseignement supérieur privé wu Sénégal la moo tax ñu indi ko teg ko ci seen loxo pour kat askan bi xam ko xam ne kat enseignement supérieur privé bu Sénégal dafa am crédibilité dafa loo xam ne nii Sénégal yàgg na nekk dëkk boo xam ne dañ ku ne da daan gàddoo sa walis fu nekk ñëw jàng si fi ñun nag dañuy liggéey pour saxal cosaan boobu nga xam ne yàgg na fi moo ñu mag euh, muy loo xam ne nii du mën du nekk lu dul bénéfice pour suñu suñu réew euh, bu ñu weesoo raaye boobu may gërëm sama naatango sama collègue yi nga xam ne ñu ngi nekk ci li ñuy wax ñun pôle d'excellence muy suñu école yi féete suuf muy élémentaire yeeg lycée yeeg collège yi nga xam ne ñu ngi def liggéey bu mucc ayib boobu li ko firndeel mooy baccalauréat bii ñu jóge muy baccalauréat 2023 nga xam ne mën naa ne ci Sénégal ñoo war a nekk école bi ëpp mention très bien ren euh, et boole ci ne vraiment euh, globalement résultat yi ñu am aussi mën naa ne presque musuñu ko am mbaa raar na bokk école di ko am ci enseignement privé donc ñuy gërëm suñu suñu collègues yooyu nekk foofu may xamle na rek at bii ñuy génn atu ndam la woon ne at bii di ñëw aussi ñu ngi ñaan suñu borom mu defal ñu sutura ba mu doon atum ndam ci groupe bi euh, ndax ñu ngi ciy jëm ci mbir yu am solo yëg xam ngeen ne ñu ngi construire suñu campus su bopp fee ci Point E euh, yokku ko ci campus yu ñu amoon rien que pour mën a gën a yaatal mbir mi mën a gën a accueillir ñi nga xam ne ñooy suñuy étudiants choisir ñëw suñu groupe pour mettre leen ci condition yu am solo loolu nag day investissement bu am solo boo xam ne nii dañ ko jagleel Sénégal suñu partenaires yi ne tugal jagleel ko Sénégal def ko pour permettre tey à ce que enseignement supérieur privé gën a mën a dem ci mën a gën a mën a dem ci kanam euh, at bi aussi ñu ngi ciy firndeel suñu engagement ci étudiants yi nga xam ne ñooy ñëw ci groupe bi pour wax leen ne rek vraiment ñu ngi leen di xaar ñu ngi leen di xaar ci condition yu yu yu yu baax di leen euh, ñaan ñu bokk ci groupe yi nga xam ne moom la ñuy gën a jox bopp ndaxte yaakaar nañ ne li ñuy liggéey war na mun bénéficier euh, euh, ci ñëpp ñëpp képp ko xam ne rek yaa ngi jàng nekk Afrique année bii di ñëw aussi dinañ continuer li nga xam ne nii mooy suñu mooy suñu marque moom lañ ñu xamee mooy toppatoo suñu étudiant tubaab di ko wax expérience client loolu dafa am solo ci ñun moo tax tey ak nu situation bi mën a demee rek dañuy jéem xool nu ñuy def ba étudiants yi mën a kontaan moo waral tey malgré condition politique yi xaw a jafe Sénégal ñu ñaan suñu borom mu defal ñu sutura ba ñu mën a organiser sut euh, cérémonie bi nga xam ne jàppoon nañ ko dindi ko euh, pour que étudiants yi rek mën a ñibbi seeni réew ak ak mbégte ñuy profito ci loolu di ñaan euh, njiit yi ndax réew dal moo koy tabax. lii ñuy def yépp bu dal amul day furaas ñuy ñaan ré njiit yi nga xam ne ñoom ñoo jëm ci at bii ñu jëm ci élection électorale élection présidentielle yi am ñu leen di ñaan ñu ànd ak dal